mbokki jullit yi dafa am ay sunna yoo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf ka daan dund daan ko dundloo ay saxaabaam am yum ci daan digle am yum ci daan tere waaye nag ñun ñu dem dem ba jamono mu mel ne loo xam ne lu ñu fàtte la wala lu ñu sàggane la lool te jullit bi su bëggee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam góor góorgóorlu ba di ko roy ci bépp boor ci lépp lu mu daan jëf ci sunnaam yàlla borom bi tabaraka wa taala waxoon na ni yow muhammad waxal sa xeet wi ni su fekkee danoo bëgg yàlla nañu la topp yow muhammad topp gii nag ci lépp lum ñu digal ñu jëf ko lum ñu tere ñu bàyyi ko suñu ko defee day yàlla dana leen bëgg jéggal leen seeni bàkkaar ndax yàlla mooy jéggalekat bi mooy yërëmekat bi kon nag jëfe ndigalu yonent bi rekk mooy tax ñu am yërmande yàlla ak njéggalam ba ca njëkk nag mooy ñu bari ci ñun bàyyeetuñ xel ci bu ñuy lekk ndax càmmooñ wala ndeyjoor lañ koy defee gën naa bare nag ci bu ñuy naan te yonent bi alayhi salaatu wasalaam tere nag képp kuy lekkee càmmoñ wala ku koy naanee yonent bi nee na bu leen lekkee càmmooñ mukk ndax seytaane mooy lekkee càmmooñ léegoo nga tere ko nit mu xaw la caa mere fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko tere nee na mooy lekkee càmmooñ ñaareel ba mooy ñu bari ci ñu ndeke xamuñ ne bu ñu sol dàll tànkub ndeyjoor lañu war a njëkk a sol comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp kuy sol dàll ci yéen na nga jiital tànkub ndeyjoor booy summi nga jiital tànkub càmmooñ su ko defee tànkub ndeyjoor mooy njëkk a solu waaye mooy mujj solu xadis bi buxaari yu moo ko soloo kon li ñu war a xam ci loolu mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam dig la ne képp kuy sol dàll na njëkk a sol tànkub ndeyjoor ñetteel ba mooy lu ñu bari tàmm ci ñun mooy gannaaw ba ñu lekkee ba noppi tàmbali saboote lekk ga wala ñu di ko ayibal te yonent bi alayhi salaatu wasalaam mësuta ayibal lekk bu ñu ko masaan a jox lekk su bëggee day lekk waaye su bëggul mu bàyyi li boroom xam-xam yi wax ci sikkal sa nag mooy xorom si daa bari kaane gi daa bari sa togg gi ñorut wala neexul wala yu ne mel te loolu day yonent bi alayhi salaatu wasalaam mësu koo def te tere na ko kon de jigéen bu toggee ba noppi jaajëfal ko moo gën di ko sikkal ndax bokkul ci jikko ju rafet ñeenteel ba mooy ndekete kon bu ñuy sol dàll dañoo war a toog ba noppi doo ko jóg dem waaw jaabir yàlla na ko yàlla gërëm nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tere na bépp waay buy sol dàll di taxaw kon nañu sol dàll toog ba noppi doog a jóg dem ñu yokk ca ni wolof day wax ni ku am baay du sol benn dàll waaye déet yonent bee ko njëkk a tere aleyhi salaatu yonent bi nee na bu kenn ci yéen di doxee ak benn dàll walla benn sang waaye nag na summi ñaari dàll yépp doxee tànki neen mbaamu sol ñaar yépp dox dem juróomeel ba mooy lépp lu ñuy jëf ci suñuy jëflante nañu joxe ndeyjoor joor nañu jëlee ndeyjoor joor suñuy mboole mi mbir lu dul loo am settee jóge ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu yaay Aïcha nee na yonent bi day bëggoon na ndeyjoor lool ci ay jëfam yépp lum ci man ci wàllu laabam ci buy sol dàll ci buy sol tubéy ci mboole mbiram yépp lu dul loo xam ni moo ko waxal boppam ni nañ ca jiital càmmooñ kon ndeyjoor bëgg ko lu am solo la kon nag mbokki jullit yi lii ay sunna la yoo xam ne yu ñu xawoon a fàtte la wala ñu xawoon ko sàggane ma jukki woon ci juróom rek ngir fàttali waat ko beneen yoon incha allahu taala ma jukki waat yeneen juróom ngir ñu fàttali ko ndax fàttali dana jariñ ab jullit maa ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal nu jàmmi tey ak jàmmi ëllëg defal ko mboolem jullit ma di ko ñaan moom yàlla mu leeral suñuy xol ci leeru topp yàlla tal ñu ci di tudd yàlla ak di sant yàlla saa yu nekk di ñaan yàlla mu wërsëgal ñu di dellu ci moom saa yu nekk di tuub mu wërsëgal ñu it wakkiir lu gu mat sëkk jëm ci moom borom bi tabaraka wa taala defal ko mboolem jullit